Mais Amadou Ba est arrivé en deuxième hein, quand même. Non, il est le chef de l'opposition, mais tous ces gars-là, ce sont des opposants. D'accord. Euh, bi mu demee Touba li mu li mu li mu daal di xamle mooy bañ ko tàllalee li nga Moy micro il faut laisser les nouveaux dirigeants travailler. Je parlerai bientôt. Le, le, la Amadou Ba mhm. mais au moins ça je le reconnais effectivement posture homme d'état bi mu donne. c'est ça en réalité parce que qui nga nit. c'est pas parce que da nga nekk de l'autre côté rek lu waay def ba njëkkati suuf sànni ci danga war a bàyyi nit ki au moins le temps mu def lu muy def ba saa yi nga xam ne leer na ne fii nag dafa tële nga ne ko eh fii nga taxaw baaxul lii moo fi ne lii moo fi ne lii moo fi nekk nii nga koy defee su la déggalee baax na su la déggalul nga génn taxaw jàkkaarloog moom ne ko lii da nga koy defee nii lañ ko bëggee ñii ñi dañ la ko comprendre. mais ci tànk yooyu la nekk ah. foofu.

Quand la saga Macky Sall la traité de. il a il a insulté les Sénégalais. d' accord. bizarre. képp ku ma ko je devrais écouter. képp ah, ku ma ko wax dafa aussi. Mangi djeglu vraiment mangi djeglu le mhm. peuple sénégalais di génne cadre gu ñu mel. mais c'était indécent Suma ma déggee ko wax mbaa taxo taxaw jàkkaarloo doxane ma doxaan sa ndey maa ngi ci wax jooju Bougane moko wax. lan lañ ko wax kon né liñ ko wax rëy mais parce que tu sais ma dafa nek en connivence avec Macky Sall lolu dafa jar saaga nday bu tal noonu maa ngi le peuple sénégalais ko qu'est-ce qu'il inspire au sénégalais ko vous bu le pouvoir fu mu jëm hmm. d'accord bu nga un ni kon. ah voilà Amadou Ba il est il est il est dans dans une logique Mais xamné est logique franchement je salue sa position. et bah, vraiment son courage en réalité. Mhm. mais Amadou Ba du wax. Mhm. Amadou Ba du wax parce que ñun ñi ngi fi on est de Benno Boko Yakar. lui il ne peut il ne veut pas parler. mais Amadou Ba ak ak Benno Boko Yakar, tamit Amadou Ba ak APR parce que ci li ma gisagum man euh, bu ma ci don tirer ay conclusion moy instant bi Amadou Ba dafa dafa dafa zappé euh, APR zappé Benno. mais c'est grave c'est grave nekk délégation de démb bi gis nga quand même. tu as vu la délégation d'avant-hier il faut pas dire ça. d'accord tu vois tu vois le APR là-bas. gis na délégation d'avant-hier gis naa bi aussi ci di commémorer anniversaire Ousmane Ousmane Tanorien. mais